buuse Babacar ngay waxal de buuse waaw loo wax wuy ma dugg leen ci biir dugg leen eh booy sama sama gaay nañ ñëpp dugg ci biir waa waaw mais buuse Lamine dugg leen ci biir waay dugg leen ci biir nañ ñëpp ci biir waaye faw ma nuyu la Babacar moo na mi de valeur ay mais nag mais da nga maa xaw a parce que yow yaa làqatu man nu ma làqatoo dégg naa da ngaa da ngay wàcc affaire yu yéeme maa ca maa nga Equivox loolu ma Equivox Equivox. Equivox yàlla na jëm kanam. waaw yow ci loo bokk rek. waaw booy man néew ma fi di teel kenn micro. acca sama gars yi waaw. waaw yow. waaw nga ne nga ne ci lu ma bokk. <laughs> mais site internet yi. <laughs> Boucher bàyyi liggéey Abdou Ngom kaay fii waay ah. kële mooy Abdou Ngom. xoolal yow Abdou maa lay bëggee. loo dugg. waaw day leer loo dugg day neex. loo dugg day saf parce que ndaanaan nga te waxkatu dëgg nga wax katu lu baax nga waaw mais sa diggante ak Omar waaw Balla gay de sama mag la c'est mon tout moom laay wax la may wax laay waxaat. looy waxaat. moom moo ma ñor. waaw moom laa bëgg. Balla waaw mooy sama mbër mooy sama xarit léegi man sama mission mooy fi mu nekk nii. waaw ci li ma yàlla may muy visibilité as tuut. waaw di ko ci fësal moom ci wàll wi mu ne mbër la. Uh-huh. dama koy fësal ba mu sut moroomu mbëram yëpp gën a feeñ moroomu mbëram yëpp keneen ku bëgg ku la fësal danga koy wuti. mais man la gay Gaye 2 laay fësal. yow la rek. moom laay fësal. doo ko rax dara. mukk ci àddina bu dee ci wàllum way. waaw Pape Diouf laay fësal. l'homme de génération consciente. kese parce que moom laa bëgg. sama waaj mooy sama waykat. moom laa xam ah. moom laa miin mooy sama mag. léegi nag ku la bëgg a mere ci loolu da koy bàyyi yàlla te yow saa la tooñee nga jéggal ko waaye man xam nga lu ma war waaw julli samay juróomi waxtu ba pare teral samay waajur teral ñi ma àndal teral samay mbokk ba pare su ma paree nag leneen li ci des rek soo biis la nañ ko liggéey ci njekk ak teraanga mooy ki ku ne fa nga far nga far fa ku ne ka nga bëgg nga bëgg ko moo gën àndu feeg bi ak àndu ngistal beeg àndu maanaam wane ni dama laa bëgg te bëggu man munuma loolu moo tax ku ma àndal rek day fës. day fës mhm. léegi faw ma cof la dara ci làmb parce que damaa dem mbuur heure bii ma heure bii démb maa nga sali Bombardier ji am wax bu ma wax te xam naa ne ku tut balla tut la dama koo laaj combat bu njëkk ba nu mu demee mu dama koo dóor mu jaayu jébbalu si ah te ne la fi newoon du fi jóg. non Bombardier moom maa ngi koy nuyu bu baax jantal garaa la ndeysaan mosuma ko dégg ci lu ñaaw te. ku baax la def na lu na ci làmb ku jël ñaari yoon roi des arènes <laughs> da ngay ree loolu amagu fi da ree mais nag mënul daan Balla gay 2 yaa wax lii ah, ah foo ko teg doole ah. waaw ak mën a bëre Bombardier yaa ko ëpp doole fuuf Balla ko dàq bëre fuuf billaahi wallaahi taalaay moo ko dàq bëre moo ko ëpp doole yaa wax lii xale la nag mais Bombardier champion la nag ku baax la ku mën làmb la mais mënul daan Balla gay 2 mënu koo daan daanoon na ko de. waaw loolu dafay tay loolu Balla boobu nekkul ci jàmm ba pare tànk bi da doon metti yaram bi di metti muy wàccu di def ay affaire bul bëri ji mu ne day bëri ji dem bëri ba pare loolu du daan loolu nekkul seen dee de. lan la victoire boobu mosuma koo dégg seen di ko lim. ba li wa wax bu yàq yow dañoo kase verdict ba wala. victoire boobu da ngaa mos a dégg ko. non non non loolu. sama sëriñ a ngi nii. non loolu bokkul ci histoire làmb. waaw ngeen di waxal de. non non ndax dañoo kase verdict non verdict boobu xam nga CNG boo fa duggee. dafa am ñaari liste yu fa nekk. man liste boobu jël bi ma Alaaji Mbay daan nekku ci. waaw jël bi Balla Gaye daan Bombardier nekku ci. man lool Balla Gaye Bombardier daan Balla Gaye. bi Bombardier bi bi ba. amiin amiin <laughs> gis ngeen jël bi ko. amiin bi. loolu nekkul ci ta liste bi mos ngaa sax ah, moom amul droit dugg foofu parce que mbëri ñoo dugg foofu non non fi mbëri ji fi ñu def bi fi ñu def liste bi. ndax ndax dañ koo kase dañ koo kase. kase mooy nga gis victoire ba pare dindi ko mais victoire boobu dafa mës a nekk moo tax. newu fa non nekku fa gisuma ko foofu. kon bii yoon day leer. nañ dóor mu daan la sax. nee na nee na doo arrière de. waa ndeysaan boogaa ngeew ngow de. Cheikh waaw. anamu anamu aca booy Cheikh batterie bi bu fayee dina dina di problème ba ñi ta fay de c'est bon ah sa lumière bi cey booga waaye Cheikh Mbacke maa ngi lay sëñ Mbacke boo nee Cheikh Mbacke boo ne Cheikh ak boo nee Cheikh ak sëñ Mbacke defe naa lépp benn la de c'est bon ah. sëñ Mbacke ngi ni wala Cheikh Mbacke fu la neex nga waxal sa bésu xarit sa bésu mbër. mais ça c'est mon ami mon frère. Omar Sakho. Balla Gaye numéro nit ku baax. loo wax ci bi. anniversaire bi daw mere. Uh-huh. tey ku gis lii. waaw mënul sant àdduna mënul waa sant mënul sant ay mbokk jullitam mënul sant mbokk internet yi. Uh-huh. da leen di delloo njukkal. olof nee na nag waa ngi suuroo bu ko rayee sax du la tax a suur. wallaay wax dëgg naa dëgg xewle. waaw wala lépp loo xamante ni Balla Gaye 2 mi ngi koy woote kenn du ci jiitu presse bi. ndax nag non fii la bës bi xewee nag Balla Gaye 2 dafa ànd da maanaam yàlla dafa ànd ak moom. presse bi nag bu ne la ñuy aw moom. non mais rawatina c'est que da ngeen yéen a xewle anniversaire ñu ñëw xoolal dama ne kay presse bi ñii leen gën a bëgg ci àdduna. Pape Diouf ak Balla Gaye. yaa wax lii. ah xanaa gisoo Pullman barki démb. hôtel Pullman Pape. non kenn mënul gi ndax presse bi bu leen di joxaat dig daje nag la 25. cey loolu du Radisson Radisson Blu. non du mës a yomb. Papa Diouf l'homme de génération consciente. non nit ku baax. xam nga ne sama waay. loolu yee ñaar diggante seen diggante altinel ak talaata bis doxu ci. borom baax la de. non yéenay borom baax rek. kon kii nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 séeri buri bàcc li ah Baye Mouhamed Baye Cheikhul Khadim Baye Serigne Saliou ñu ngi koy ñaanal. yal na yàlla guddal fanam. kontaan ci yow. yal na yàlla wéral ko. kontaan ci yow. ñu yàgg koo feete ñu yàgg koo fekkee. ci barke sëñ Bamba. sëñ Mbàkke bokk ku moom micro bi. Fulé kër Balla gay lañ ne mu ngi noonu taxaw ay entraîneur am yaa ngi nii. ah waaw yéen a ngi ak seen mbër waaw kii neexul bañ daal borom baax la man xam nga lu tax mu neex ma xolam bu rafet jeex na jeex na. anniversaire bi tey loo koy loo koy ñaanal. bi ma ko gisee dina dam ko ne dundal dundal dundal dundal dundal dundal ak wér ak xéewal jeex na takk coach waaw waaw gis nga ne dañ ñëwoon pour souhaiter ko pour waaw dañ ñëwoon pour souhaiter ko joyeux anniversaire ah, ah, Balla suñu ah, Balla la Balla suñu Balla la ñu ngi jëm nag foo xamante ne moo ñu gën a soxal ñun coach yi c'est eh, incha allah ah yàlla dinañ si may lu ñu bëgg incha allah dinañ leen fekk saal waxtaan ci si barke anniversaire am bi sax laay waat Omar say entraîneur a ngi nii wër la de. waaw ñii samay doomu ndey lañ nu ma mel ñoom la de ah. xam nga leen ñoom kon ay seex. mais tey nga woote ah, gis nga sama coach bi sama patron bi la sonal ah. te kii mooy sama patron kii mais borom baax lañ ay complice lañu mu nekk vraiment salle mu duggee da nga naan kenn ñoom ñaar doo ci xàmmee kenn te liggéey loolu moo jam solo taala mii suma xarit la jëwriñ noonu papa Assane Thiam ñi fa nekk ñëpp daanaka sumay xarit lañu vraiment ñu nekk ñu ñoo xamante ne lépp lu ma nekk ñu ngi ci te loolu la mënul nitam moo tax mën a gisee sama xol day sedd tellement que du ma mën a wax lu bëri. mais sax mais am na histoire bu fi am liiru jaan dañu ku dëkkul géej yooyu doo fi dugg Xaadim Njaay di dugg xeex sax xaw nañ koo def. mais ah, mais père suñu xarit la. mais damay Xaadim dana ko dinaa dugg par force. dama koy dama koy tontu ci lu mu wax. Mm. waaw waxal ok wax na ne ñun coach yu baax la ñu kii xaritam ñu baax. mais man xam nga lan laay jàpp ci nit man xol barki Seex Ahmadou Bamba bi ñu bokk taalibe boo koy wut mi ngi nii non déggolum loo taalibe mi ngi nii man nag ab taalibe laa bu ma gisee sa mbokk taalibe dama koy téye foofu laa yem waaw moom kon ni mu la ko wax rek Sëriñ Tuubaa ñu boole <laughs> jàmbaar la moom jàmbaar la xam nga ni muy waxee nii noonu la mel te noonu la may entraîné man mii di wax yow. waaw fekk naa leen saal de man. wallaahi noonu lay. mu lay teg lu métti. noonu lay entraîné ak man. bu ko defee waa ji naan ko waaye yow bàyyi liggéey rek. Maodo Thiam sa waay day xol bi day day day tooy de. sa waay nag jawri nag daa mel dafa soxor de. mais noonu la kontaan naa vraiment kontaan naa nag. kontaan naa ba Serigne Touba kontaan naa. mais mbër muy anniversaire rek comme ni ñu ko waxee. ñu gis mbokk yeeg xarit yi ñëpp teew. nit mbokkam. muy melokom te àdduna noonu la rek keneen noo koy féetee keneen keneen aussi noo koy féetee mais ñoom daal mention spéciale si man bañ ma jàppee ba léegi bàyyiwuñ ma bu ñu gisee lu ma naqari wala lu ma neex dañ ci ànd ak man ñoom noonu lañ mel ak man jàppewuñ ma succès wala affaire làmb wala non non non non làmb suma métier la kenn ku nekk am na métier mais li gën a am solo mooy nga jàpp nit yàlla tax boo gisee loo xam ne yennul maanaa nga wax ko bu gisee loo xam ne koy defar nga wax ko ko ñoom ñi ñëpp noonu la ba ci yére sax dañ ma koy jëndal wala daal di ma ko jox te pourtant mënoon ne duñ ko def donc vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm. ànd bi daal maa ngi ñaan yàlla mu sax xam naa la koy cof sax parce que liiru jaan Bombardier da koo wax nee na nee na ko boo moytul yaay nekk sacrifice su combat bi te liiru tontu noonu affaire ba naqari na liiru trop non naxaar wàllam boobu naxaar wàllam ba ci kanam naxaar wàllam ba lënd si yam